arbitre sifflé na il est 20 mu ngi tari moom Mama Lamine Mama Lamine waaw ah, mu ngi ñëw waaye Jokalante la taxaw dagg na Leewtoo bi Jokalante daaw la waroon a taxaw dañ ko waroon waaye blessure. la def mu ñëwaat ren Jokal moo ñu woon ginnaaw ñu jàkkaarloog Mama Lamine day ñëw ci suuf la jëm Mama Lamine xam na loolu ci tànk la jëm Jokal Mama Lamine xam na li def oxo daw na ko jël waaye doole doole ah dafa saf moom Mama Lamine Jokkel o doomu ndey Siteu bi li ngay def xam na ko xam na ko da koy daan da koy joor xeex nañu a ah way li nga xeex Jokkel Mama Lamine jël na ko tegal na ko sees daan na ko